Amadou Ba euh, ci élection présidentielle yi nga xam ne euh, moom la ñu euh, daal di dëdmal mooy moom nag mu ngi xamle que ne na mu gisee Amadou Ba mooy quelqu'un dama dama fort da maanaam koo xam ne amorphe voilà mu nekk moo bi nga xam ne euh, mu nekk une personne boo xam dafay manqué de personnalité euh, de caractère voilà d'énergie koo xam ne euh, dafa téye boppam comme ni nga ko waxee koo xam ne daal amul cëfër cëfër wala caay caay caayu politique comme on dit chaque fois moom noonu la gis yi ki nga xam ne moom mooy tamit rassuré wu ko à 100 pour cent rawatina yi nga xam ne moom la ñu daal dëdmal te tamit rassuré wul aussi Sénégal yi nga xam ne ñoom la bëgg a jiital nan nga jàng jàngateegu kan maanaam na nga xam ne rek euh, Souleymane Jules Diop euh, qualifié na ko Amadou Ba est-ce que euh, da ngeen di bokk même longueur d'onde ou pas Euh, euh, tey jii man mënuma hmm. nekk ci gaal ba pare eh, di ŋàññi gaal ga wala sax di wut eh, leneen loo xam ne ko kon déjà ñun wala ñenn ñi nga xam ne tey jii hmm. amoon nañ peut-être yaakaar ci ki nga xam ne moo di Amadou Ba hmm. peut-être est-ce que duñu duñu retiré wu ndax tey jii man mënuma ànd ak yow ba pare euh, yow ki nga xam ne moo di sunu njiit ñun ñëpp mu di le président de la République daal di choisir ki nga xam ne moo di Amadou Ba ngir mun koo def li nga xam ne moo di président ci deux 2024 et que yow nga bokk ci ci ci même ci ci même mouvance boobu noonu et que tu te dis que ne peut-être moom rassuré wala rassuré wu la wala moom euh, taxawaayam wala charisme wala li xam ne moom la war a amal ngir doon ab président nekk loo xam ne lu lu lu rassuré wu kon loolu dafay nekk loo xam ne xel dafay tiit jëm ci ñu euh, ah, mu nekk franc parler mais tey jii nii euh, tey ñun ñu bokkandoo ci ci ci ci mhm. benn gaal ak lu dinañ def suñu kémtu lay kàttan kattan mu doon loo xam ne fóotum biir néeg lay doon fóotum biir nekk lay doon du nekk loo xam ne tey jii dañ koy génne fàng daj ci li nga xam ne moo di penc ba ngir mun ko faa teg ndax nag am na ñoo xam ne peut-être am am ne moo di nga xam ne moo di Souleymane Jules Diop bokk ci mouvance présidentielle et ab lënt-lënt boo xam ne dina ko def ci ñenn ñi nga xam ne peut-être bëggoon nañ ko fal wala dara mën nañoo jàpp la wala ndax gis nga xam ne euh, moom la euh, tabb ki nga xam ne moo da Amadou Ba ci biir APR ak Benno gis nga yëngu-yëngu yi nga xam ne ci la am ñenn ñi génn nañ ñenn ñi peut-être ñoo ngi des ba léegi mais ñoo ngi naan amuñu yaakaar wala amuñu lii wala peut-être Amadou Ba bi nga xam ne moom la njiitu réew mi daal di daal di teg nekkul ab boo xam ne kon moom benn dëggal boo xam ne da koy daal di si ñenn yenn kàddu yi nga xam ne ñoo ngi ko doon wax ne peut-être Amadou Ba bi nekkul candidat idéal boo xam ne tey ji moom la waa APR ak Benno Bokk yaakaar wala teg li nga xam ne moo di si élection présidentielle ñu xool rek euh, peut-être euh, fan la wànnante di mujjee gëta mbay en plus moom mi nga xam ne amul bi nga xam ne moom lay na campagne déguisée la def. voilà voilà loolu mën nañ ko mën nañ ko tuddee ak campagne déguisée ndax dañoo wax li nga xam ne moo di tournée économique. Mhm. tournée économique ba xam nañ ni ñu koy daal di defee. Mhm. peut-être ab campagne déguisée voilà mais est-ce que yow jàpp nga caay-caay bi nga xam ne waroon na ko am suñu caay-caay nag mooy loo maanaam benn dégager benn énergie boo xam ne au moins dina sentir que ne kat kii ab homme politique la on peut dire que ne Amadou Ba euh, tout compris donc Macky Sall. Ah, dañoo noppi waaw comme ni ñu koy xam ne ku nekk ak na yàlla na la na la yàlla bindee. Mm-hmm. Euh, tey ci nekk président du question de xëbër du question de waxu bëri expérience la ak benn capacité boo xam ne tey da nga daal di am. Amadou Ba nekk na nit koo xam ne nit ku dal la. mais nit koo xam ne aussi euh, ci langum politique am na ab liggéey bu am solo boo xam ne Miss Daa na koo xam ne ku miin langue politique bu baax a baax am na ñoo xam ne nag peut-être ne jàpp ne kii mën dafa am benn charisme boo xam ne moom ak le président xaw nañoo niroo ci benn côté boo xam ne ci dal boo xam ne nekkul koo xam ne ku ku ku bëri ku bëri la wala koo xam ne kuy kuy wax ci kaw la wala mais teewul nekk na koo xam ne ab politique boo xam ne la am na am na am na capacité yi te en plus am na benn liggéey liggéey boo xam ne def na ko ci wàllum politique et am na taxawaay boo xam ne aussi ci làng politique kenn du ko ci kenn du ko ko présenté kenn du ko ci naatable te am na ay ndomb tànk yu bëri yoo xam ne daal na ko ci euh, taxaw aussi voilà mi ngi doon nag euh, Ibrahima nan nga jàngatee euh, Jules Diop en tant que aussi responsable politique affaire mu yëkkati yi lay kàddu di wax li nga xam ni moom moo nekk lu dëggu ci moom que ne Amadou Ba mi mu gis kat Euh, nekkul ne euh, moom moo mën a euh, man a opposition bi nekkul ne moom mooy rassurer sénégalais yi peut-être gisul loolu depuis lors mi ngi koy observer on peut dire mais gisul lenn loo xam ne rek mën na tax mu am kóolute que ne kat candidat am bi li di Amadou Ba mën na gagné. bon je pense que Jules Diop il a le courage de ses de ses idées hein. il mmh. a dit tout haut ce que beaucoup de gens ici de la coalition Benno murmurent en bas. voilà euh, parce que tey boo xoolee depuis le choix bi nga xamante ni def nañ ko ci ci Amadou Ba. Euh, comme ni ko soxna Aïcha waxee wax ji bëri na ñenn ñi ils ont. Euh, penser que Amadou Ba c'était pas c'était pas le candidat bi nga xamante ni moom la waroon a teg ci coalition mm-hmm. Benno Bokk euh, moo tax sax ñi nga xamante ni moom moo di Mouhamed Boun Abdallah ay ñoom Mame Boye Diao ak ñoom Aliou Dia ñoom ñëpp génn mm-hmm. ne dañuy dem li nga xamante moo élection présidentielle mm-hmm. euh, ñooñu parce que ils ont été courageux à faire face li nga xamante moom mooy le choix du président Macky Sall ñenn ñi am na si ñoo xamante ni ils sont issus peut-être amuñu courage bi nga xamante ni ñële am nañ ko pour génn jàmbaarloo ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy le choix bi nga xamante ni président Macky def na ko mm-hmm. je pense que nag par rapport ak li nga xamante ni si la Souleymane Jules wax na ko euh, ci li nga xamante moom mooy Amadou ak sa sa candidature euh, c'est que nit ku nekk aussi ak na la yàlla bindee te Amadou Ba c'est c'est quelqu'un boo xamante ni tey peut-être ni ko nit ñi bëgg a jàppee mënul parce que euh, il a toujours été dans l'administration euh, bu bu bu Sénégal ba tey ñu jël ko dugal ko euh, le président Macky Sall ñëw en jël ko nommé ko li nga xamante ni moom mooy directeur gé 2014 ñu nommé xamante ni moo di impôt et domaine ñu jëlee ko foofu noonu nommé ko li nga ministre des finances ak li nga xamante ni moom mooy di budget te musul def politique c'est vrai que xaw na politique tuuti ci ci ci ci nga xamante ni moom moo di membre ci li nga xamante ni moom moo di parti parti socialiste parti démocratique sénégalais mm-hmm. mais euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, APR la gisee ne mu commencé dugg ci politique euh, commencé jàppale li nga xamante ni moom moo di président Macky mais c'est pas un vrai politique comme li nga xamante ni moom moo di instance yu bëri parce que il a milité à nekkoon fa militant ci li nga xamante moom di parti boobu noonu milité fa taxaw fa nekkoon un syndicaliste sa xeex jóge foofu noonu dem ci parti féete fa xeex ba egg ci li nga xamante moo di parti bi nga xamante ni créé na ko tey mën nañu wax ne kooku il a parcours politique dafa milité ci ay parti politique am taxawaay bi nga xamante ne am na ko ci wàllu politique autrement dit que ki nga xamante moom mooy le le Amadou Ba nekk candidat benn bokk yaakaar. mais Amadou Ba avait tous les chances pour euh, dem euh, gisanteeg askanu Sénégal pour wax ak ñoom parce que n'oublie pas aussi euh, il est le nekk euh, premier ministre amaana boobu la waroon dem euh, ca askanu Sénégal waxtaan ak ñoom comme bu ko defoon avant kon mën naa ne tey bu ñu ko tabbee euh, du nekk benn problème boo xam ne Souleymane Jules Diop wala keneen na kenn entre autres dina ko citer. mais Amadou Ba en tant que premier ministre. mënul dem ci askan wi waxtaan ak ñoom. parce que si si si mën na ko mais pas mën mhm. lu tax ma ne la dem ci ci ci li nga xamante ni moom mooy askan bi waxtaan ak ñoom. parce mhm. que il ne savait pas encore qu'il est candidat. Mhm. de un de moom li mu fi li muy li muy def moom mooy suivre l' gouvernementale. Mhm. Mhm. tey gouvernementale c' est président de la république qui moom moo koy jox prérogative yi nga xamante ni moom mooy tax mu mën a dem ci askan wi pour wax ak ñoom. Mhm. parce que président de la république moom moo koy. moom moo koy wax ne demal inaugurer ma nangam wala demal defal ma euh, pose première pierre nangam wala demal defal ma nangam mais moom en personne il ne peut premier ministre dem ci askan wi exactement di di di wax ak ñoom lu jëm ci wàllu ci wàllu politique parce que moom li ñu ko li ñu ko dénk moom mooy suivre l'action gouvernementale mm-hmm. donc lépp lu nga li nga xamante ni dafay dafay dafay nekk liggéey buy doxal askan wi wala liggéey boo xam ne dafay li nga xamante moom mooy jëm ci askan wi là su boobaa il est obligé à ce que président Macky Sall bu ko joxee li nga xamante ni moom mooy signal wala prérogative mu mën a dem def loolu mais ci li nga xamante moom mooy jëm si candidature am loolu mooy wane sax ci li nga xam ne moo di tournée économique bi nga xam ne ko xam ne moo di mu nekk absolument euh, jiite euh, APR mu ci ne la jiite li nga xam ne moo di euh, tournée économique bi mën a am ab lënk ak digganteem parce que la cherté de la vie mm-hmm. ak yeneen yoo xam ne askanu Sénégal ay jafe-jafe ñu ngi koy dund mm-hmm. yaat bi amaana mu nekkoon ab occasion boo xam ni au moins dinañ wax que ne ah Amadou Ba kat ba dund gi chéré génn na wax ak askanu Sénégal euh, maanaam dalalaat leen seen xel amaana kon tey su demee pour jublu ci askan wi dinañ ko daal di li nga xam ne moo nekk comme sànq Ibrahima waxee mais léegi premier ministre quand même moom moo géré li ne mooy gouvernement bi quand même ba ne moo di warum chérité bi tey am nga ministre boo xam ne moo lay géré lu la mhm. am nga yeneen tànk yoo xam ne tey ñi nga xam ne euh, le président ndax mhm. tey jii nekk président munoo nekk fu ne tey jii looloo tax mu ut li nga xam ne moo di premier ministre moom mun ko dimbali ci li nga xam ne tey jii gannaaw ba nga xam ne loolu mm-hmm. nañoo tabb ki nga xam ne moo di a a waxtaan ak ñoom ci noonu la eh, mm-hmm. amaguñu woon décision ngir wax ko ne yow yaay représenter li nga xam ne moo di Sénégal la day rester si li nga xam ne ci wàllum gouvernement bi gérer lépp lu jëm ci wàllum wàllum gouvernement et que pàcc bu nekk ku nekk nga war a def sa liggéey ngir mën a am ok moo waral jafe-jafe yi nga xam ne kon mi ngi koy dund ak euh, na seeti ko di ko wax que ne ko Amadou Ba euh, wàccal ngir nga mën a gisanteek askanu waa Sénégal maanaam ngir mu mën a am benn euh, jaxasoo boo xam ne dinañ ko mën a sentir de trop te depuis lors Amadou ci gouvernement bi et on ni jaxasoo boobu amul waaw je pense que c'est que fi may waxee peut-être ko da koy comprendre en tant que premier ministre moom mhm. mënul génn rek jël décision génn pour jàkkaarloo pour dem ci ci population population bi parce que moom il action gouvernementale bi moom lay moom lay moom lay contrôler c'est mhm. c'est le président de la république moom moo ko jox prérogative Euh, yoo xamante ni moom moo koy permettre à ce que mu génn dem ci population bi parce que tey bu fekkee ne te ne war na am benn inauguration boo xam ne le président il est empêché mhm. mais mën na yebal le premier ministre mu dem def ko bu fekkee ne am na pose première pierre boo xam ne dañ koy dañ koy def mhm. mën na yebal le premier ministre mu dem def ko mais le mhm. premier ministre mënu génn rek di dem ci askan wi di wax ak ñoom di dafay dafay def il n'était pas encore mais tey kon loolu bu ko defoon xëy na le président Macky Sall mën na am ay solutions yoo xamante ni sax peut-être mën na ko mën na ko bañ a choisir ci li nga xamante moo jëm ci élection présidentielle mhm. et jàpp naa ne que étant que mu nekk candidat c'est le moment de de de de sortir fi nga xamante moom mooy seen laurier dem jàkkaarloo ak li nga xamante moom it askan wi parce que actuellement moom moo soxla il faut mu génn tey dem as jàkkaarloo askan bi dem wax leen li nga xamante ni moom la moom la moom la moom la bëgg a def surtout ci par rapport ak li nga xamante ni jàpp na ne moom euh, continuité la war a def ci li nga xamante moom moo di PSE bi expliquer carrément les Sénégalais li nga xamante ni moom moo jëm ci ci PAP 3 PAP 4 xamante moom ñoom la ñuy je pense que ne loolu tey euh, euh, ci li nga xamante moom mooy question euh, bi nga xamante gis nañ ko surtout ci wàllu courant ak yu ni mel pense que ne mm. yooyu am na ci des des des rencontres yoo xamante ni le gouvernement face à la presse jot dañ ko ci def yoo xamante ni moom moo jëmoon euh, euh, ci ci li nga xamante ni moom moo di euh, yenn ci jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi ko doon jund surtout ci li jëm ci immigration clandestine je pense que ne doyul en tant que premier ministre moom en personne war na di organiser à chaque fois day conseil conseils interministériels surtout ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo bokk ci secteur yooyu noonu ñuy toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom pour mën a jël ay ay ay solutions yoo xamante ni dana permettre que askan wi mën a am dundin boo xam ne moom mooy gën a mucc ayib Euh, voilà mi ngi doon nag mu nekkoon ci euh, mbirum euh, Souleymane Jules Diop mi doon wax ci mbirum Ousmane ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba nekk candidat wu mouvance présidentielle et aussi mi ngi xamle que ni Amadou Ba mi ñu gis bu ñu amee org bu ñu amee opposi opposition boo xam ni dafay daal di organiser wu kon mën na remporter élection yi ci kanamu ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba moom nag Amadou Ba mooy candidat am mais nag Amadou Ba li nga xam ne mooy sénégalais rassuré teewul aussi ñi nga xam ñoom la bokkal euh, coalition nee na nag loolu la daal di euh, nemmeeku te tamit li mu gis la daal di wax ci Amadou Ba mais tey su sañoon Amadou Ba gagné li nga xam ne moom mooy élection yi mais nag ça ne veut pas dire du wax tamit la nga xam ni euh, moom la jàpp wala du wax la nga xam ni moom la daal di gis ci ki nga xam ni moom mooy seen candidat di Amadou Ba aussi ñu daal di jeexale ci benn